dal leen jàmm mbokk yi euh, ci xibaaru tàggat yaram yi bi yoon nag euh, ci wàllu mercato lañ koy jagleel ak euh, mbiri Kalidou Koulibaly ak waa Barça jamono yi nag Barça ma ngay yëngal bu baax a baax wante laata ñuy ñëw ci faram-fàcce gi nag dañuy wax ñiy gan ci page bi ñu abonné te activer cloche bi ndax vidéo bu fi bàyyeekoo ngeen bokk te ci cay njëkk a jot te ngeen di aimé te di commenté lu ci am solo la ñu ñëw ci faramfàcce gi Barça ma ngay gën a xuus euh, bu baax a baax ci mbiri doomu Sénégal bii di Kalidou bali la mu bëgg mooy wut euh, diffenseur centrale boo xamante ne dina mën a dëgëral équipe ngir ñu waajal saison bii ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci média catalan boobu di sport euh, nee na agent bu Kalidou Koulibaly ma ngay waxtaan ak waa barsa ba sax euh, agent wam euh, ma ngay digal joram di ko xelal ngir mu nangu proposition yi ko barsa defal bu ñu sukkandikoo ba léegi ci sport mi ngi wax euh, Barça day def na offre bu tolloog ci vingt millions d'euros ngir attacher les services de l'international sénégalais Kalidou Koulibaly wante la ca des rek mooy club bii di Napoli est-ce que dina ko nangu est-ce que dina nangu bàyyi ki nga xamante ne mooy Kalidou Koulibaly dem fële ca Barça ngir jàppale leen ca liggéey ba loolu nag dinañ ci xam dara ci semaine yi ñuy jëm. président barsa bi muy Juan Laporta laaj nañ ko ci mbiru Kalidou Koulibaly tey bi mu loo ko taskatu xibaar yu espagnol yi. wante la mu xamle mooy du ci wax ndaxte Kalidou Koulibaly jour jaamur la jaamur la jour Naples la nee na avantage bi Barça am mooy joueurs yu bari dañoo bëgg a ñëw jouer ci club bi. amaana waxtaan nañoo Kalidou bari ba mu xamal leen ne Barça la bëgg a looloo tax mu waxee noonu kon mbokk yi fii la ñuy ndar keppalee xibaar yi di leen wax ba beneen yoon ci suñu yeneen i jotaay xibaar jaa ngeen jëf.